naafiq naan mako beug c'est parce que laloul sa mbokk bu laaloon sa mbokk nga téegal ndem nga naan Ahmed Cissé mako beug bëgg patati mais boko ko c'est parce que tu travailles avec lui mu lay jox ay miel parce que je crois que Andalaburi nga ne non non miel la jox miel bi fumu mu Ahmed Cissé da defar miel nga toog naan miel bi boo ko defee sa awra ki ngay tëddal keeg ay duuli neen miel bi ngeen di jaay dara baaxu si miel ak angalaa buree si yem ku ko jënd lopp seen dara baaxu bu doon garab bi ngeen di defar la ngeen assuré nit ñee ne garab bi lii lii ngeen ko defee xam-xam la mais du xam-xam jënd ji ay garab si ay ivoirien wala ay congolais ñëw defaraat ko ci ay bouteilles ñëw di ko jaay sénégalais ay cent dollars Euh, boss ok excuse-moi dama juum bon excuse-moi euh, je sais pas euh, ok ok ok je pense que c'est déjà fait merci c'est déjà fait ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd si dëgg Ahmed Cissé Gambie bu muy woote ne fa la cosaanoo Gambien si boppam dañ ko bàyyi yenn sénégalais nek ay doomu haram nan dañ koy taxaw parce que kawul sen nday kawul sen bay lumu don tere adamo ba adamo bayiko ko la nek di def jamono ji lan la Ahmed Cissé def lu rafet ci réseaux sociaux yi ñëw toog taal tiktokam diw ëmbal nga masali ëmbal nga patati lu ci gatam te mom ndeyam a ngi nonu dañ ko biral Ahmed Cissé bayam dafa ubbi dara Gambie di jàngale ëmbal benn xale Yaya Jammeh tëj baayam du ngeen wax si loolu de du ngeen wax si loolu mais lu tax ngeen naafiq mbës yow da nga am lu bëri sax Kaliphone si biir live bu mbës déeta soo ko ñëw danga nga bépp mais après da ko yàq parce que da far ba ëpp parce que nga tok nan way man buma ma damay far serigne bi mais yow wax nga ko nee nga serigne bi nga faral Comme ñun mënoo ñoo faral mënoo bëgg serigne bi di ñu bëgg mënul nek tu fais semblant ñu xam nak ak yow xolal sama numéro kañ nga gëj sama statut je l'ai supprimé depuis parce que man nit rek la xam je l'ai supprimé depuis l'ennemi de ton ami xawma l'ennemi, l'ami de ton ennemi c'est ton ennemi comme Ahmed Cissé da nga jébbalu ci moom da nga jël ne moo la gënal sa ndey gënal sa baay gënal say mboq jëlal mais ñun gënaluñu sax sunu xaj yi nekk sunu biir kër doomu xaraam bu alku ma ne la Ahmed Cissé dafa toog ne alxuraan bi lu bëri luñ ci wax du dëgg nga ne waxul loolu yow da ko mën a plaider loolu te vidéo yi ñu ngi YouTube sénégalais yi dégg lu mu wax Ahmed Cissé moo toog mu ne nañu jël ay capote daal di koy séddale si jàq yi Ahmed toog ne yàlla day taaxuraan Ahmed Cissé toog ne alxuraan bi lu si bëri du dëgg nga ne déedéet waxul loolu dafa wax nu ñuy defee fan yi jamono ji mais loolu munoo ko layal moo ko wax moo ko wax mu ngi YouTube on ne peut pas défendre l'indéfendable xaw ma leen koy waxee Ahmed Cissé yàlla sunu borom moo ko alak de lakk gatam gi day continuer di lakk ku ànd ak moom sa gat bi day demaale di lakkaale ba faw Ahmed Cissé yàlla moo koy dóoral boppam kurpañ gàttam bi di lakk ku ànd ak moom it sa gàtt day lakk animu tey dawul demul taxaw naan ay bu ñëwaatee dina def li mënul si ñun tuunu ndeem ñun ñii xawma ko ñoom aadamoo de mais man ku dul Ahmed Cissé mënul si man job bu ndeem bu dee ba ngeen dégg dëgg bon tëkkam yooyu na ko jël roof ko si tuunu ndeem moom Ahmed Cissé pour na gën a defaat luy métti comme nee na la 3 lay ñëwaat le 3 fii ak muy ñëw di ngeen bég xool leen ndax di ngeen bég bu Ahmed Cissé mënoon si ñun dara yàlla bu ñu njëriñ suñu àdduna salaamaaleykum mënu ko si ñun doomu xaraam googu mën nañu tëkku ñun ñu tiit wala ñu ragal mooy kan bu mënoon dara du musal boppam si li ko dal yépp ci jafe-jafe mu am yépp balaa ngay defaral nit kay defaralal sa bopp balaa ngay ne damay def nit ki dara dal ko defaral sa bopp yow dara protéger la duñ la dóor duñ la duma duñ la tëj kaso doo am say tuunu neen génn nag surtout ay tuunam ñoo génn lu gën a nekk gàcce loolu dafa am si kaw suuf ngeen di koy rafetal naan way gisuñu dara xoolal mbës taxaw naan way gisuñu dara dara feeñul yéen mën ngeen toog ne tuunu Ahmed Cissé koyam bu tuuti bi gisu leen Ahmed Cissé en personne xam na ne cuccu la yor kooy bu tuuti moo tax yéen man je vous comprends pas nit bul ànd ak moom si ay fen bu ànd ak moom si ay duul da doon weer sénégalais yàlla weer ko yàlla waxam du dañ ku fi weer doomu aadama ma weer la ku suturaal doomu aadama ma suturaal la mais lii xew ci ñaaw teef si àdduna bi yëpp bu yàlla doon xaawi sutura yi fu nit ñi jëm mais parce que ñooñu dañuy suturaal doomu aadama yàlla suturaal leen bu ñu tuubee dellu ginnaaw yàlla jéggal leen c'est tout mais Ahmed Cissé mu ngi def lu muy def doomu xaram bi jàng ba ne yey kayit di xaawi sutura doomu aadama yi yàlla xaawi suturaam ngeen waroon ne ko seen bi lii juum nga waruloo woon dal ngeen toog naan gisuñu dara gisuñu dara bu ngeen mën a gis kay mais ñun gis nañu ñii dem si telegram yi gis nañu ñii ñëw si whatsapp yi gis nañu ñii ñëw instagram gis nañu bañ ko tegee tiktok it gars yi gis nañu lii la sa sëriñ la yor yu lii bu dee mbës Ahmed Cissé mooy sa sëriñ kooyam bu tuuti béegi nii lii lii lii nii lii la yor bu toogee si réseaux sociaux naan wayi damay jaay andalaa buri andalaa buri day réyal kooy andalaa buri patti pataate moom kooyam mënul rëy quel problème kooku mënu leen ko setal naan way na Ahmed Cissé cuucam génn na bunam génn comme ni ngeen di koy waxee même bu dee manque de respect ñun bëgg nañ ko ñun da ngeen dégg ñu ne leen bu leen bëgg Ahmed Cissé bëgg leen ko ba yombal xiyaam lu suñu yoon mais bëgg ngeen ku ñu bari bañ bëgg ngeen ku ñu bëri bañ fi seytaane sax am nañu ko bëgg seytaan am nañu bëgg seytaan kon bu ngeen bëggee Ahmed Cissé yéen a yem mais nit ku baax du bëgg Ahmed Cissé c'est parce que Ahmed Cissé kaawagul seen waa kër moo tax ngeen di koy bëgg di leen abal ay compte mais ñun bu ñuy téegal Ahmed Cissé yéen ak seen coalition yéen ñëpp ñu ànd téegal leen parce que ñun lu ñu def si moom fii mille ans du dañ ay doomam ay sëtam sët sëtaatam dinañu ñëw appe google ñu bind Ahmed Cissé ay tuunam génn lu ko gën a métti dafa am da ngeen toog naan ñu en s'en fiche de Tchitchou yéen koy wax mais Ahmed Cissé du wax loolu moom paa bu toll ni moom toog ñuul kurum tuunam yëpp ci biti yéenay wax nous on s'en fiche de Tchitchou mais pas Ahmed Cissé Ahmed Cissé xam na Ahmed Cissé moom xam na moom xam na bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax téegal nañu ndeyam ba yowmal xiyaam ndeyam lañu téegal ba yowmal xiyaam bu dee mooy sa sëriñ téegal nañu ndey sa sëriñ bokk seen réewande naan Ahmed Cissé fu ngeen teg seen sëriñ yi laa ko teg après nga xam ne juum nga au lieu nga jéggalu nga naan bu leen ma jaxaseeg sénégalais mais yaa wax noo Kaliphone waxul man jékki-jékki ma ne ma way sama sëriñ moo ma gënal Ahmed Cissé waxuma ko yow mbës yaa jékki-jékki naan yow yaa jékki-jékki ne man man maa bëgg Ahmed Cissé moo ma gënal seen sëriñ yi yaa ko wax non est-ce que maa la sexal ba koy wax waxal bu doon man maa jékki-jékki naan sunu sëriñ yi de ñoo gën a Ahmed Cissé ñu ne Kaliphone sax yaa ñu yëpp yow mi fi di andi naan ay sëriñ si ñoo gën a Ahmed Cissé du moromam mais yow yaa jékki-jékki naan man Ahmed Cissé moo ma gënal seen sëriñ yi moo tax ma ne ko aw ma sëriñ pour manque de respect bi nga naroon manque de respect sunuy sëriñ nga xam ne juum nga nga pare naan way Kaliphone bu nu leen ma jaxaseeg aduna mais yaa jaxase sa bopp parce que waxkat dina wax ba làmb tuunam ne lii sa tuun Il wax kanamu ñëpp ñëpp di seetaan ñëpp toog di que nga ne Kaliphone wax dara Ahmed Cissé gënal nga ko non lu fa andi MC euh, Dia Sony mon voisin 78 place Racine je sais pas moi j'ai pas euh, j'ai pas j'ai pas euh, j'ai donné mon adresse sur les réseaux depuis 100 ans. Si tu es là en train de dire mon voisin, 78, tu crois que moi, je parle. J'habite à la place Racine 24, 78. Donc arrête le commentaire, Calimon mon voisin, pati pata. J'habite à Poissy. Tout le temps, je fais des lives, je montre les gens. Tu es en train de commenter. De, de, de, Tu as compris, t'as capté. pris mon adresse, non Cali, mon voisin, 24 place Racine 78 300. Je l'ai parlé depuis plus d'un mois, jusqu'à même moi était là. Ok Jusqu'à moi même est venu chez moi. Moi, je n'ai pas pour dire c'est ici mon adresse ou pas. Je ne fais pas de drop, je ne pas tuer de personne, ainsi de suite. Tu n'es pas mon voisin, je ne te connais même pas. Si tu veux donner sur mon adresse sur les TikTok, tu crois que moi, je suis là pour, euh, euh, pour que les gens ne savent pas où là j'habite Non, tu te trompes. Tout le temps, je fais des lives devant moi.

toog fii di bind sama adresse mel ni man sama adresse dama koy nëbb man sama adresse maa ko njëkk joxee si réseaux sociaux ba ñoom aadamoo dégg ko ñoom joor yëpp dégg ko dama rey nit dama jaay drogue damaa nëbbatu dama yore nit xaalis bay làqatu fu ma dëkk Dalifort bi ma juddoo Yaro maa damay toog ne Dalifort laa dëkk ci marché àjjuma bi àdduna yëpp di gis lu may nëbb sama adresse nëbbu ma sama adresse nëbbu ma kenn yoralu ma mbindeef buy dox 1000 francs jaayuma doro reyuma nit police waruma ameluma kenn dërëm ku xam sama adresse après boo ñëwee looy wax tali kon là pour dire way parti je l'ai même pour mu dem est-ce que ngi dégg loolu laa la bëggoon a dollil mbës pour nga comprendre kon dem la bëggoon dollil ne que boo comprendre ne que yaa dugal sa bopp si erreur du man maa la dugal ci erreur yaa ñëw ne Ahmed Cissé moo ma gënal seen sëriñ ça te montre que tu respectes pas nos sëriñ parce que boo bëggee jël benn doomu xaj bu mel ni Ahmed Cissé di ko méngaleeg suñuy sëriñ donc yow ça va pas dans ta tête te ñu bëri xeeb nañ la à partir de tey tu respectes pas les parce que ñun suñu sëriñ yi xamewuñ leen waxu ñàkk fayda yooyu donc boo juumee yaa waroon ñëw ne eh juum naa si erreur maa ngi jéggalu mu jeex mais doo wax li ngay wax après ngay ñëw naan da ngay couper sa live boo couper sa live ñun mën nañu def sunu live parce que yàgg nañ def sunu live sans ñëw sa live kenn merci pour nga comprendre donc ñun ak Ahmed Cissé sunu combat ku si dugg it yaa siy des ok après on coupe ok. Kali maa ngi ziar de. naka yi tey Sénégal ci xol maa ngi lay bëggal. maa lay nuyu baax a baax naka waare. alhamdulilah ça va. mais Kali ma dama dem lu ma doon ñaan quoi te xam ñu bëri dina la ko ñaan ñun ñi nga xam dañ laa sopp bëgg la. ok. bi nga sànq bi nga nekk live envoyé naa la message sa whatsapp quoi. ndeysaan. te nga Kali daa am daa am ay place yoo xamante ne yow nekkul sa place quoi nekkul sa place barke Seydina Mohamed. dëggantaan. yow c'est war nga tok sa nga xol xol fa ngay peser xam yan yan beureum ngay dem parce que man suma hmm. ma ñu wax lolu nak daf may metti sincèrement parler billahi suma ma ñu wax lolu nak lolu nakari naqari hmm. barke maulana cheikh ibrahima ñas daf may nakari eh, mais comme ay life ay mbeus man xam na ni bo fa demee mëno fa jëlé lolu neex hmm. parce que sa way non sa non la mom mënu la bëgg lolu c'est impossible ya war nga xam ni fii du son du xam ak boy yi yéeg di la wax di am ci yow ben accès boy yo xam ne kenn xam nga ñun daal kali duñ neex quoi buñ sañoon xam nga yow boo wéetee nga taal sa laaj ñun di leen dugg di leen partager di leen déggee quoi. exactement yow nga may ñu loolu rek te yàlla rek tax quoi. incha allah dégg dégg naa leen incha allah billaay wallaay honestly su ma déggee ñu wax lu loolu naqari barki Mouhamed daf may naqari. dëgg loolu nag yàlla moo ko def defoo ko defu ko yàlla moo ko def. Mm-hmm. xam nga yow de ñu sóoraale quoi si yenn si yenn place yi yenn yenn yenn actualité yi ngay dem. wala dara quoi. Mm-hmm. waaw mais maa lay ñaanal nga am jàmm bu baax. bàyyi naa sa Merci vraiment, Bab. Nen mo Amérique. Jaajëf. Poutine, bismillah. waa grand Khalifa maa ñu ngi sant ñu ngi dooli ziar. yaa ngi am sama xol baa ngi bon baay barki rasulaay bu gisee nga yegg live sa waa ji. déet waay gaa di taf sa photo. billaay maa ngi bëgg xar suuf di la bë maa bind naa kali wàcce wax nañ ba sonn. ah waay live boobu. ndeysaan xamoon nañ fu muy du baax. nañ nga live ñun suñu gisee fu ñu lay manque de respect bàyyi suñu xol du du du baax. jéggalu jéggalu ah? jéggalu tamit xool xool yenn yi <laughs> del xool yenn yi del xool suñu sax non je sais que mos la te teegal nañu sëriñam je sais la kooku wuy ma ko comme li nga wax sànq rek mooy ku ku maanaam maanaam euh, ku la bëgg du bëgg du bëggante ak sa noonu. Hmm. ñëpp xam nañu Ahmed Cissé sa noonu la. bëgg la hmm. donc boo boo gisee ku naan man dama bëgg Ahmed Cissé xam nga ni yow tamit bëgg la. wax dëgg yàlla comme ni nga waxee sànq mënoo bëgg a mënoo moom mënu leen bëgg a bëgg a. Eh, xas non non bu leen mer bu leen sama gars yi ñu ngi naan dañoo mer bu leen mer sama gars yi. en fait. Euh, de de de de ah, gars yi dañuy yàq suñu xol sant borom bi nee na man mii sax commenté naa Kali wàccal non j'avais vu. mais fale ma toog foofu tontu ko te gis ngeen yéen moom moo mujj gàcceel boppam moom moo énervé moom moo fay laay. ba mais mais parce que amatul lu muy wax. boo tey boo waxee ba nga naan yow man man Cheikh Ahmed Cissé sama sëriñ moom ma gën a su yow moom daa xam kan mooy suñu sëriñ ñu. ah ma <laughs> maa ngi doon dindi naa ko woon place yow koo xamante ne dafa sëriñ bi da toog di saaga foofu nga eh, yëg si laay fam. awa awa yow nga de. Eh, man damay wàcc damay wax rek damay wàcc. maa ngi maa ngi jéggalu amul temps. waaw d'accord merci beaucoup. bi ñoo far. ok dégg naa leen incha allah. nu mu far ak sëñ ah, bi. nu mu far ak bi ah ah ok. bu daaneel xale yow ak sëriñ bi ñoo far lan moo tax may def ci live boobu. kooku kooku xoolal benn mooy la mënoon am mooy fay live parce que amatul lu muy wax boo waxee ba boo waxee ba nga naan man Cheikh Ahmed Cissé boobu moo a gënal seen sëriñ yéen. Hmm. Ah, parce que am c'est parce que amatul lay wax parce que. ñu xam nga mooy suñu sëriñ. wallaahi moo tax ba mu waxee la ñu ne sëriñ. voilà moo tax ma ko amoo sëriñ parce yaa ngi ne woon amoo ko parce que munoo jël Ahmed Cissé ne seen sëriñ yi mbaam bu mel ni Ahmed Cissé c'est tout parce que voilà non c'est amatul lu muy wax amatu amul xamatul lu muy wax moo tax il faut mm-hmm. laaj ko mu fay live bi mm-hmm. parce que amatul lu muy wax comprendre nga donc ñun eh, avocat bi maa booy def yéen xoolal si ñun en fait xoolal si ñun quoi d'accord ok merci di la jaajëfal nekkal si jàmm yàlla yàlla fay la amin amin yow ñoom dañ laa bëgg dañ yàlla tax barki rasul yàlla bëgg leen jërë ngeen jëf vraiment merci euh, bàyyi euh, man li may wax rek mooy ngir yàlla wa rasulu yow dañ lay bàyyi xel bu bëri bëri bëri bëri ci tiktok bi quoi ndeysaan yow espoir u jeune nga bul dugg ci yenn a yi incha allah waaw ngir yàlla wa rasulu a jotaay éviter ko yow da nga tax gayaan man sax may suivre TikTok lu bëri yenn jotaay yi gis nga yenn hmm. bu ko nangu ngir yàlla bu ko nangu bul dugg ci loolu bi nga porté woon noonu di gindi jeunesse bi nekkal ci loolu mais ay daal santé ñun xamee wuñ la loolu yow góor yàlla incha dinañ ci bàyyi xel yow borom baax nga jaajëf kontaan nañu yàlla fay leen ndeysaan am nga gars yi lépp yéen yéen ñu bëgg yéen ñuy topp fu ne donc maa ngi jégal wér yéen ñi bëggutoon gis ma dem foofu mais dootul am. taw fee bisimilah. Kalim Kalim Kalim maa taw fee bisimilah. Kalim Kalim maa lay ziar démb maa ngi lay suivre sa baax a baax yow ku la gis sa kanam rek day xam ne nit ku diiñ nga. ndeysaan. nit ku nit ku honnête nga honnête nga man du ma faral di dugg ci live lu bari mais damay teg teg ci tamit nit ku am fit nga ndax situation lu mu kiri kiri kiri su ma la seetaanee yaa ngi ànd ak sa sabar bi yaa ngi am sa dignité loolu mooy nit am na nit ñoo xam ne ñoo toroxal seen bopp gis nga ñooñu liñ liñ li ñuy dund yow tegoo leen ko ñoom ñoo ko teg seen bopp wallaahi gis nga làmmañ làmmañ léeg mu wax a waxa wax a wax ba takk sa bopp takk ñi nga àndal gis nga lislaam ak suñ mag ñu baax ñi duñ ay caaxaan ñooñu ku leen ku laal da ngay laalaake Mm-hmm. comme te yow da nga leen a da nga a jekku hundred pour cent da nga leen a jekku cent mm-hmm. pour cent xoolal bul dugg ci live bu kenn del nekk sa live nit ñi di la seetaan ngay def li ngay def sëñ bi loolu rek a koy faj yaaram yow amal jàmm ñëpp a ngi lay béggee man sama xoolal ku la gis rek da xam ne ku diiñ nit ku diiñ nga macha la ko jot yàlla xamal ne Sénégal Sénégalais ñëpp a sa gannaaw loolu yàgg na si Sénégalais ñëpp ñu sa gannaaw yow yàlla mu yàlla moo lay sàmmal boppam dénk nañ la yàlla bul ragal bul tiit yàlla moo fi nekk jaajëf. incha allah kontaan naa jaajëf euh,